Euh, waa Yewwi Askan ak itam ñeneen ñoo xamante ne dañu ci opposition euh, cité euh, quelque ci président Habib Sy bu Yewwi ak Cheikh Tidiane Youm waa FRAPP honorable député Guy Marius Sagna mouvement Mimi 2024 ak honorable Aminata Touré waa LD Debout avec Abdoulaye Bathily Mohamed Ndiaye ak Awalé ñoom ñëpp dañu ànd sol seen dàll dem seeti président euh, mouvement gëm sa bopp mu di Bougane Gueye Dany euh, ñu euh, décider ensemble que dañuy dem ci benn plateforme boo xamante ne dañu koy teg ngir mën a xeex troisième mandat muy rek sàkkuteef wala loo xamante ne njiitu gëm sa bopp bi mu koy wax wala bi mu ko bëggee mbébét bi en tout cas yàggoon na. waaw xam nga jamono bi ñu toll stratégie bu ne. Uh-huh. danañ ko teg. prétexte bu ne. Mhm. danañ ko utiliser pour remplacer ki nga xam ne moo fi nekk di président Macky Sall. Mhm. ndax ñoom ñëpp benn fauteuil lañ ciblé benn gisuwaay la am benn vision la ñu am mooy nekk président de la République du Sénégal en deux mille vingt quatre. Mhm. incha allah bu dee élection bu dee élection am na. en deux mille vingt ndax ci diggante bi lu ne mën na fee am diggante nañ fee pouse élection. mën nañ fay dàq élection mën nañ fi mën nañ fi mais bu dee am na incha allah. ñoom ñoo ñu créé plateforme bii nga xam ne moom lañ fi teg du lu bees. boo xoolee Bougane Gueye Dany élection locale yi. législative yi. mbooleem élection boo xam ne def na ko rek discours am. ak communication boo nekkoon non au troisième mandat. bokk na ci li ca li jox doole. opposition bi. campagnal na boppam avec ses propres moyens. il a mérite. parce que wane na opposition bi mu nekk d'une manière très radicale mm-hmm. mais tout en temps pacifique parce que radicalisme bi mu wane ci élection yi mooy arñ bi mu joxe ak xarañte bi mu joxe mm-hmm. ak fitna gi mu def troisième mandat bi mais tout le temps modérant son langage son comportement et avoir une approche avec la population lambda hmm. ci discours boo xam ne du discours bu bu agressif du discours bu bu vantant guerre uh-huh. mais xamal na Sénégalais ne président Macky Sall waru fi am troisième mandat bokk na ci li contribuer li tax opposition bi am tey benn doole. ci victoire ci victoire ci élection yi weesu. coalition bi nga wax moom lañu fekk si ñoom. Uh-huh. muy gëm sa bopp. dañu am seen i euh, yoon seen seen seen seen seen i seen yoon bu ñu jël feuille de route politique am coalition bu leen fekk si méngoowuñu ñu de route politique ci biir ñi nga xam ne ñoo ñu leen fekk si wax nga ci Mimi Touré qui n'a jamais parlé du troisième mandat du président de la République de 2012 ba bi ñu koy génne assemblée nationale ne doon doo nekk président assemblée. mais bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom déboire problème yi mu am yii yëpp wax ci troisième mandat bi bokk na ci li ko ko indil. non waxul ci Mimi masul wax ci troisième mandat au président de la République il n'a jamais parlé du troisième mandat du président de la République war na ko def war a war ko def mii mosu see prononcé wu ba jour bi ñu ko waxee assemblée nationale ne ko ci li mu wax moom que ne doo nekk présidente assemblée nationale dañ koy jox keneen mu génn déjà en tant que député elle n'a pas accompli de devoir d'un député parce que fekkewul vote ba te dafa waroon na fekkee vote ba en tant que député même bu dee mer na mooy premier acte bi nga xam ne waroon na ko delloowaat askanu Sénégal bi ko fal def ko assemblée nationale def ko député mu remplir condition wu député ba pare soo a génn droit am la nag ñaareel ba bi mu génnee ci la commencé teg non au troisième mandat mais en dehors du non au troisième mandat Mimi Touré man en âme et conscience je sais que du am beneen argument bu mu songee président Macky amu ko xam nga lu tax. léegi tout ça pour pour dire quoi. xaaral ma ñëw elle n'est pas légitime non am na yoo du ma nekk ñun ne illégitime wala légitimité. non pour bokk ci plateforme non am na trois dama ne nous sommes dans une démocratie nous sommes dans une république où toute où toute personne toute mhm. personne. est libre d'adhérer ci n'importe quelle association. parce que plateforme mouvement parti c'est des associations. Mhm. qui sont créées. Mhm. norme association la ku mu neex am nga droit ak sañ-sañ dem fekki fu la neex mais quand on parle aussi dañuy génne historique bi nga xam ne tey war naa mën a tax sénégalais yi xam ku ci nekk sa démb ci ni ci taxa nekk sa taxawaayu démb ak sa taxawaayu tey lu ko war a taxawaayu démb ba muy nekk ci gouvernement bi bañ nag ba day wax naan le président Macky Sall a un bilan matériel extraordinaire sur le bilan immatériel du président Macky Sall bi nga ne moo posé problème Mimi Touré est comptable sur le bilan matériel il est comptable mhm. donc tey bu fekkee dafa ñëw fekk si plateforme non au troisième mandat dañ ko koy nangul mais dama ne avant muy gedd avant muy génn APR ak Benno il n'a jamais prononcé le troisième mandat il n'a jamais parlé sur sax au contraire sax ñu doon xeex troisième mandat bi sax Mimi mi da doon jàkkaarloog ñoom di teg ay argument di tangible wax na fi ne deuxième quinquennat président Macky Sall war na ko am Mimi Touré mos na ko argumenté. kon tey deuxième quinquennat boobu bu fekkente ne waxatu ko nu wax non au troisième mandat damay jàpp ne c'est une bataay individuelle crypto personnel boo personnel boo xam ne moom lay engagé boo ñëwee ci Habib Sy Habib Sy du candidat Habib Sy du candidat portewul candidature kenn dafa bokk nag ci coalition am na ci sañ-sañ mhm. mais le mois de mars émeute yi amoon ci mois de mars Mm-hmm. mais télévision yépp site internet yi wane nañ Habib Sy au moment bi nga xam ne avant mois de mars de am bokk na ci ay discours am na ndaw ñi génn taal dëkk bi na ndaw ñi génn jàkkaarloog policiers yi xeex ak ñoom ba yàlla def loolu am Habib Sy ñu filmé ko biir këram mu sol blouson wa casque casque tam t-shirt tam di wàcce escalier naan ay bo nelaw ba midi naan ki ko doon filmé alors nanga booy yi booyaa ngi mbaa booyaa ngi ci ci booyaa ngi taal booyaa ngi xeex ok c'est bien c'est bien nañ taal fukki bakkan ak ñeenti rot ci Habib Sy ñu woon na ko télé vidéo Facebook muy motiver les jeunes ñuy guerre boobu doomam bokku ci raxam bokku ci jarbaatam bokku ci ay mbokkam bokku ñu su mu pare toogal ci biir saalam di sataan télé ñuy rey booy yi booy di xeex policiers yi tey kooku moo ñëw tey ne non au troisième il faut qu'on essaye de comprendre ce pays la manipulation politique politicienne bi nga xamante ne nos hommes politiques son en train de le faire et d'utiliser la majorité bi nga xam ne am na ci ñoom ne ils sont pas conscients et la plupart du temps c'est la jeunesse bi nga xam ne moom la ñu wax la jeunesse inconsciente parce que day xam la laa gëm ndaw mu yor diplôme am njàng ba yàlla may ko mu commencé ay buntu ndaw moomu balaa nga koy engagé ci gars yi dem combat vente à guerre dina ci xoolaat boppam boo yooyu si Bougane Gueye Dany mhm. mais Bougane Gueye Dany yooyu askan wi la bokkoon dafa xëy bu dee génn démissionné ci te yàggu fa de yàggu fa yàggu waaye dama ne dafa ne salaamaaleykum xool ne fii li ma gis dëgg newu fi Bougane a wax dëgg amu fi muy yeewi askan wi yoon amu fi dictature moo fi am ñoom ñooy décider ñooy tëgg ñooy def lépp man du ma ànd ci loolu mais mais ñu dem ba mujj bi ñoom ñu jàkkaarloo opposition ak opposition. d'accord hmm. waa kon tey ñoom bu demee ba ñëwaat bëgg a mais ànd bi euh, foo foo foog ñu préciser ko euh, Ibrahima. nekkul ànd boo xamante ne fusionné wuñu seen ay coalition ngir dem ci élection dañoo ànd ci benn plateforme non au troisième mandat. c'est but. Euh, bu ñu jëlee exemple gëm sa bopp ñoom xeex troisième mandat. bi ñu koy def ak léegi pratiquement def na ay weer yu bari. am na ci individu Guy Marius Sagna ak ñeneen ñoo xamante ne ñu koy xeex yàgg yàgg na au lieu d'y aller en rang dispersé peut-être c'est mieux. xam la lañ war a gën a rey seen bopp. Mm-hmm. parrainage bii nga xam ne moo leen di faagaagal. pièce par pièce yaa euh, deuxième kon ma yem foofu <laughs> ñoom loo ñu wootee. Mm-hmm. plateforme boobu man aw ma lu ma ciy critiquer dama siy ànd laa parce que association la. am nañ droit adhéré ko mais ñi nga xam ne ñoo ko séq est-ce que bokk nañ idéologie bokk nañ philosophie est-ce que bokk nañ yoon bi nga xam ne moom la ñuy jaar pour sénégalais yi jox leen crédibilité bi tax ñu mën a taxaw tey kaas ba sénégalais yi fekk si leen ci loolu ba que yi nag danoo sonn ci ay initiative yoo xam ne ce n'est rien d'autre que des initiatives politi politiciennes ma daane lu ndaw mhm. ñoom ñoo ñëpp c'est des intellectuels mhm. très bien avertis ci biir plateforme boobu ñuy wax no au troisième mandat ñoom nañu wax la modification de constitution de de la constitution de deux mille vingt et un mhm. 2001 bi nga xam ne moom la ñu voté référendum 2016. très bien sur les sur modification constitution de de de bi mooy référendum bi amoon en 2016 y' a 15 points ci biir 15 yooyu def nañ ci nul ne pas avoir plus de mandat de 5 ans ñoom ay intellectuels lañ nañu débattre ak yi tamit. très bien ci la ci ci mandat wu. Mhm. deuxième quinquennat. Mhm. wala ci xam nga lu tax. dañ ne nul ne peut faire plus de mandat consécutif. consécutif très bien xaaral xaaral ma daane rek loolu la ñu wax. waaw léegi nu ne peut faire plus de deux mandats consécutifs Sénégal yëpp xam nañ ne deux mandats de cinq ans la Sénégal yëpp xam nañ ko pas loolu constitution bi wax léegi ñoom 2012 2019 bu fekkee bokkul ci mandat bi nga xamante ne mhm. président Macky Sall